5M TV Sénégal abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën jot lépp loo xam ne day bàyyikoo fii ci 5M TV Sénégal ak 5M TV ñéppay dañ ak réer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel ci 5M TV Sénégal ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara te di li seen ànd ak ñun saa su nekk seen mbokk la Seexuna Mbàkke mbokk yi fan yi actualité bi xawoon naa bëri ci senegal amoon na loo xam ne moo ci gënoon fees te ñu bari xam nañ ko muy mbirum Kouthia Kouthia bi nga xam ne fan yëpp ñu ngi koy waxtaan ci rajo yi ak télé yi ak ci réseaux sociaux yi mu nekk yoo xam ne war nañ ci indi ay jàngat beneen bi mooy Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne dafay jouer fële ca Paris fan yi nag ñu gis ne dafa am lu ñu ko préposé yoo xam ne dafay euh, dooleel góor jigéen te àndul ak diineem mu bañ nag ci loolu bañ koo def euh, bi ci njëkk mooy Kouthia Kouthia bu ñu seetloo TFM yàgg na fa loolu kon bu fa jógee nii rek am na lu ko waral li ko waral nag nit yi dañuy njort rek mais kenn mënu koo xam ndax Kouthia waxul kenn ne lii moo tax ma jóge TFM donte na gis nañ yoo xam ne waxoon na ko ci ustaas yi. waaye suñu ustaas yi nekk ci télé yi man comédien bi sax maa leen gën a doon ustaas man maa wax lu leer laa leen wax dàq nu ma jàng xëy na dañuy maîtriser alxuraan waaye ëpp ñu ma xam-xam ndax xëy na ñoom plateau yi ñu toog sama du ma fa toog. mais taxul ñu ne kat carrément lii mu wax nii kat moo tax mu quitté TFM déedéet daf ko wax xëy na mu tombe am yeneen ñu ko waral ndax loolu wax na ko bi mu ko waxee tamit maanaam ba mu waxee tuddul tur kon boo waxee ne ustaas yi rek xëy na ñi nekk ci télé lay waxal mais tuddul benn tur ne kii laay waxal mais nag bu ñu jékkee-jékk gis mu quitté TFM ba dem tijji benn seen YouTube dafa dawal li nga xam ne daana ko def TFM kon dañuy njort ne dañuy njort ne maanaam euh, wax yooyu ma waxoon nag xëy na si lañ ko xeexee ba tax mu jóg jige TFM ndax Sénégal mooy réew moo xam ne boo fi nekkee te di wax dëgg maanaam boo fi nekkee di wax dëgg dañu lay xeex xeex ba nga jóge fi moo xam koo mën di doon bu ñu xoolee sax ci yenn ci réseaux sociaux yi lu mel ni Xalaat TV bu ñu xoolee dañ koy am na ñoo xam ne ñu ngi koy xeex ndax dëgg yi muy feeñal arrangé wu leen senegal daal ni mu ko waxee sànq mooy réew moo xam ne boo fi nekkee di doxal dëgg yow dan lay xeex xeexe la ba nga jóge fi ndax bëgguñu ku leen wax dëgg te Kouthia li mu wax keroog ci télé bi ci loolu ci émission boobu noonu. am na solo lool ndax li mu wax mooy dëgg ndax ustaas danga war a wane li nga xam ne mooy li yàlla wax ak li yonente bi wax di ko wax nit yi mais pas di tuukariwu ci télé yi di wax loo xam ne wax la wuñ lu ko ndax ustaas Modou Fall moom mi nga xam ne ñu bari ñoo njortu ne kat ku caa wax ji moom la ko moomale maanaam li tax ñu ñot loolu mooy oustaz Modou day wax di waxaat day wax di waxaat ndax bu ñu xoolee ay temps waxoon na fi kat ne maanaam ñàkk fayde weesuwul nga toog ci télé bi naan sant diw sant ma diw santa ma diw waxoon na ko fi. koo xamante ni bii li ngay wax gëmoo ci tus. parce que léegi nit ñi da leen di jënd. da ngay jënd oustaz Modou ni ko boo toogee ci tele bi gërëmal ma Alioune Ndiaye waxal ma ay xeeti baax baaxam. dóor ko cent mille francs oustaz Modou Fall ñàkk fayda au lieu que moom bu toogee mu wax nit ñi diine fa lay nekk naan maa ngi gërëm Alioune Ndiaye vraiment suñu bis bi jàpp na ci joxe na naan te dañ laa jënd dañ laa commandé pour nga gërëm. ñu toogaat ba deux mille vingt deux ñu gisaat ko mu toog ci télé moom maa ngi sant diw maa ngi sant diw maa ngi nangam nangam loolu sax dëgg la nit bala nga sant yàlla da ngay sant nit yi mais comme dafa waxoon waxaat. te ni mu ko waxee dafa rafetul ndax dafa ne ku naqaree nga toog ci sa gaasu maam xaw ma dafa dafa rafetul dara moo tax sénégalais yi méttul lu ko te alal ñi ngi ko jox noonu alal li réew mi la nekkul alal yoo xam ne ñi ko joxee dañ koo moom moomuñu ko alalu jàmbur la ndax réew mi ñoo ko bokk waaw kon nag bu ñu ko joxee mën na sant rek mais pas muy wax ko mu naqaree nangam nangam nangam loolu moom rafetul waaw beneen bi mooy Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye gis nañ ne dañ ko proposé yoo xam ne wàllum góor jigéen la pour ay moyens yoo xam ne da koy sol ci ci football bi te si drapeau yi LGBT dajay nekk mu bañ léegi nag ñu bëgg ko ni problème loolu nag li may wax mooy dafa am nit yoo xam ne xaalis fëkku leen benn ci Idrissa Gana Gueye xaalis tiitalu leen ndax xaalis dafa nekk loo xam ne maanaam day jeex te ëllëg suñu borom da lay laaj ci xaalis bi nga am noo ko amee woon ak foo ko dugaloon loolu nag nit ki bu ko dugg sóoraale day yomb mu dugg ci yoo xam ne ay tooxi doona la te Idrissa Gana Gueye bu ñu xoolee ni muy doxalee te nekk dina dinañu xam ne kii nit ko am personnalité la dara fëkk ko bu ñu xoolee fan yi rek ñi nga xam ne ñoo demoon Dubaay ak ña fa nekk am si ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp am si ñoo xam ne dañuy lekk ay dem àll ñooñu la xaalis fëkk mais am na si nit yoo xam ne xaalis fëkku leen tiitalu leen mais nag comme moom jullit la Sénégal la yoon la mu bañ li nga xam ne ñun ñii dañ koy bañ suñu réew waaye nag comme àddina moom moo tëddee nen li ma waxoon sànq rek maanaam àddina fii ci Sénégal sax rawatina booy doxal dëgg rek il faut ñu jim laa fakastal jim laa yàqal jim laa tilimal sa der ba doo jarat lenn ci réew mi bu ñu xoolee Sonko rek comme Adji saar ni ñu ko bëggoon tuumaal waaw day wane ne moom boo fi nekkee kuy wax dëgg rek def te nekk fi rek dina la jima xeex xool nu ñuy def ba ba jëlale fi rek ñoom daal nañ leen bàyyi di leen wax di leen tagg di leen wax loo dëgg ñoom daal ñu gën a kontaan ci yow dee ngay wax dëgg moom léegi ñu jim laa sàkkal pexe jim laa xool nu ñuy def ba yàqal la ba jëlale fi mais nag yàlla moom nekkuloo fi diwul kenn la fi nekkulul ñëpp la fi nekkal kon nag nañu bàyyi xel ne maanaam àddina du dara kër la goo xam ne dañu fee dajaloo pour jaamu yàlla ëllëg suñu borom lépp lañu fi def nañu koy laaj kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah fii ci 5M TV Sénégal seen bokk la woon Cheikhouna Mbacké jërë ngeen jëf. te nga aimé vidéo bi partagé ko ak sa xarit yi bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am si sa YouTube directement.